ngeen di abonné fii ci Tawfekh Production ngeen a jot mboolem vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam li nga xam ne mooy sugri li man kuli bi saara loori dan doon suqtin inda sar saara taw أبار غرمت نتلنا في أجل منزار حلما جيخ بزيرو مور باكي باي سرين علاجي باكي باي سرين خادم باكي برم تايبا جراجم أبار بار بار شيخ مصطفى سالم باكي جراجم نتلنا في أجل منزار إن الذين إلى صرصار قد خزنوا

فارقت فارقت قصد سيارة الفراغ أو سارق Udu Bamba koni bay Bamba koni bay Cerno jàngal ñi fi raw bahari sagara Bamba koni bay Koni ba delu ni ko bay Cerno jàngal ñi fi raw bahari sagara Ahmadu Bamba ko di Bamba ko di bay Cerno jàngal ñu fi raw bari ba ko di ba xëy ni ko bay borom daaru raw na leen saxa Seex ah, Antaay borom dërëm Seex Antaay borom gërëm am Seex la Bamba ma ni mbooloo mi képp ko am bëgg am am dërëm ak ngërëm jugal taxaw ca kaw ñu màggal maam Cheikh Anta ku màggal maam Cheikh Anta yàlla nga am dërëm waa Daaru Salaam Cheikh Antay borom dara Antay borom gërëm Cheikh la mam gërëm ari saxa Antay borom dara borom jannati ilal jannati Cheikh la mam gërëm ari saxa jàng naa dingeen gi kër ibn Mustafa la di bax Bambaay sa sëriñ ajab mbinu Mustafa billahi ku fi max bambay sa sëriñ bari saxa billahi walay ku fi max bambay sa sëriñ bari saxa ku fi max bambay sa sëriñ ku bëgg sëñ bamba defal ni sa loxo ku fi max bambay sa sëriñ bari saxa ku fi max bambay sa sëriñ ku bëgg sëñ bamba defal ni sa loxo ku fi max bambay sa sëriñ bari saxa ku fi max bambay ba tax nar yaa ngi ko naan Fallu yaa ngi yaa kayti ne xanaa kii di Fallu yaa di sama su